أنت ربي وكنت لي بدادي Touba Taïf Karo nekk fii ci Grand Yoff en face hôpital CTO Taïf Karo nag Jibi Bamba mooy gérant bi ah mbokk yi Touba Taïf Karo nag kenn dootu leen ko présenté ci biir réew mi lépp loo doon wër ci wàllu karo yu baax gaawal gaaw ñëw ci suñu biir place bi di Touba Taïf Karo nga mën fi fekk ay karo italien karo espagnol wala karo indien ngeen mën fi fekk ay karo poli 1 mètre pour seen ay salon wala salle de conférence ngeen mën fi fekk ay karo décoration yooyu amul fenn ay carreau faïence pour seen ay cuisine wala seen toilette ay grès poli 60 60 ay plinthe wala ay baguette ba ci ay carreau parquet lépp am na ci biir Taïf carreau ay carreau espagnol 60 60 wala 40 40 marche escalier wala contre marche ah mbokk yi lépp loo soxla ci wàllu matériel sanitaire gaawal gaaw ñëw fii ci Taïf carreau li ci gën a neex mooy Taïf carreau defal client yi promo boo jëndee carreau yooyu dem ci kër gi yépp fii ci Taïf carreau nee maanaa la matérielu sanitaire ñoo la koy offrir defal la ko cadeau muy siège anglaise lavabo ba ci lépp luy taaral salle de bain waa Taïf Karo dañ la koy may moo xam kër gi nekk niveau niveau de wala niveau trois Taïf Karo nag am nañ beneen place bu nekk fii ci Cambérène ah sama mbokk yi yéen ñi nekk ci diaspora bi am seeni sànca fii ci Sénégal bëgg a karole seen kër ba mu mucc ayib adresse bi fii dong la ci Touba Taïf Karo gaawal jël suñu numéro téléphone 96 88 wala 76 923 33 85 ak Touba Taïf Karo ñooy number one ci wàllu jaay karo. xam nga ñun ay lëbu lañ quoi. mais li ngay fecc da nga ko répété wala nu demee. ñaari fan. ñaari fan. par par par WhatsApp. ndeysaan. xam nga ñun ay gune lëbu dañoo dégg moo tax. waaw tamit xam nga rek caare yëpp ne suñ ginnaaw yaakaar ñu tey quoi. ñu ngi ñaan yàlla mi moom ndam may ñu ndam quoi ndax liggéey nañ ko te sonn nañ si combat bu baax a baax. mais tey bés lay laaj ngay bëre koo xamante muy Batista numéro 2 gars yi jox ko favori loolu nan la ko gisee. waaw loolu yaakaar naa ko am quoi di beneen mbër moo xamante ne dañ ko jox favori yaa ma ko wax sax xaw ma si woon dara. mais yàlla mi moom ndam maa ngi koy may ma ndam incha walim laaj ma duggee si géew bi rek ni nga gis xalil eh, waaw bëgg a xeex de maa doo ñëw di xex tay non inshallah allah lu mu laaj rek ñu ah. sa cameraman bay Cheikh ah. sama waay ma ngay nuyu yaay neen lamb nañ cee bok waaw dama see bok mom moo tax ma ne ci ba léegi mais ma ñaan yalla yalla mom dam tamit sutural suturaalaat yalla ma yalla sutural mais ma dam mooy Bamba Ndione Junior waaw tay bés bi la la laaj jàpp mooy sant baax rek te noonu indee mbër mi baax baax waaj nañ ni war dem si Papa Kane bi day Pak,

Yeah. booy bu muur bi dinaa la may saa ñu saa. dëgg la mais tey jii ah booy yi nga xamante ne ñu ngi si làmb di bëree di tuubee booy yooyu yan booy nga si biir. dëgg la kon nag bëre moom expérience rek la ko daane mais du dara. ndeysaan am na seen fu mu jëm. comme monsieur champion la daanaan la yaa ngi comprendre moom si fee carrière bi nag mais nañ ko ubbil poox yi bu jaaree waaw incha allah léegi combat ñëw capitaine nekk nekk na bàyyi gaal yi lamb ñëw démb la ñëw démb la ñëw na bàyyi gaal yi moom maa lay jaar moom lay toll lay toll ma ne ko toll maa ngi ko waxal ñu ñu ñu wax vraiment dina farlu ni ngeen joxe ci ñu ñu ko seen xam ne li wax ni ci combat boo fi sebal moo koy message ah. am koy victoire victoire bi ci 23 combats loolu yombul. na ñëw may sens. bisimilah jàngal ko bëri. macha allah kattan yëpp da nga lay jaajëfal. kii ji waay caare xamante ne. ah muy nañ ko ne. xamante ne jaajëf.